sama doom. nee ngi nuyu doomam. sama jarbaat sama jarbaat. sama sëriñ. ñetti cër yooyu yëpp. am naa ko ci ki toog nii sama ginnaaw. lépp lu Cheikh Alhaji Abdoul Aziz Al Amin jur. man maay sa képp ku sëtoo ci Alhaji Abdou Kane. tey jigéen di samay jigéen man maay seen càmmin képp ku sëtoo ci maam Cheikh Alhaji Malick radiyallahu taala anhu yow yaay sama sëriñ Baye Mansour ne wax ji du gudd di gërëm Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha amna na baat bu gëna kawe fuuf sama baat bo xamni jamuna bayam jamuna bayam ba baayam ne ko jazakallahu wa ana xayra Serigne Mansour dañ fi woon di borom fi woon nekkoon borom daara ji magam ni ngi fi woon nekkoon Cheikh Sidi Mouhamadou Mustafa rakkam mi fi woon di Cheikh Sidi Ahmed Tijane Sy Al Maktoum waaye waaye la Seydi Boubacar suñu bàyyi la Cheikh Al Khalifa radiallahu taala anhu suñu bàyyi joxoon Seydi Abdou Aziz Al Amin joxoon Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Al Amin jox ko woon benn doom bu dee Serigne Mansour bu dee Serigne Mansour bu dee Seydi Jamil bu dee Seydi Jamil

bëgg mbokk yi te du wax dara lu dul dëgg ci moom. yenn saa léegi nit laaj ma kuy Seydi Abdou Aziz. yenn saa yi nit laaj kan mooy Seydi Abdou Aziz. man leen xamu leen baayam de. ma ni leen xamu leen baayam de. ndax fekkewu leen. ndax fekkewu leen jamono ba. waaye la leen réeroon ca waaye la leen réeroon ca baayam. mi ngi ci Serigne Abdou Aziz Al Seydi Mouhamadul Moustapha. sa baay nga ca Barzak. sa baay ma nga ca Barzak. waaye ma nga lay gërëm. sa maam Serigne Babacar Sy. ma nga ca Barzak. mi ngi lay gërëm. sa maam Cheikh Al Hadj Malick. ma nga ca Barzak. waaye ma nga lay gërëm. joxe cër. joxe cër. du tee am cër. maay sëñ سيدنا عبدو مجو سيدنا ابو بكر مو كجو شيخ الحاج مالك جوركو تير دي اوبول لول كوي سما مام كوي سما مام موي كا خامني موي كيغا خامني سما مام شيخ سيد الحاج مسار جاخلي سو سما مام شيخ الحاج مالك مسار جاخلي تي تاريبي تي تاريبي ndax soxla yeen koy tek ki xelam di dem alhaji amit kan alxaaji abdi xamit kan mo jur sama dal garaat ci tariikha bi garaat ci tarixa bi mënul ëpp loolu waaye nag waaye nag lii am lii am Ousmane Samba tok ni ak Koskas Ousmane Samb toog nii ak koskaas ak la xew ci Tiwaawan ak la xew ci Tiwaawan ak la ngay deugal toujours ak la ngay deugal toujours ci Sidi Boubacar ci Cheikh Alxaaji Mansour mooy sunu kilifa mooy sunu baay ndigalam la ñuy nekk lu mu lay wàññi dara dara waaye waaye jooyoon nañu wallahi kenn mbokk ci mbokk ci tariqa bi ci tariqa bi ci diine ji ci diine ji kër fekk kër fekk ko ci yow nag si rangooñ yéen doon jooy rangooñ yéen doon jooy muy dal ci suñu dënn féexal nga suñu xol ci lépp ndax la sa bàyyi fonkoon moom nga fonk lan la sa bàyyi fonkoon diine ji tariqa bi mbokk yi loolu ci nga taxaw si ku la bëgg dab ku la bëgg dab rek wala mu jël sa jikko na laal loolu nga foog nag ki nga xam ni à travers le Sénégal à travers l'Afrique à travers le monde kenn du moom muy Cheikh Seydil Hadji Malick dëgg la sa maam Sidi Babacar dafa ñëw Pout. sa maam Serigne Babacar Sy dafa ñëw Pout. ànd wax Ousseynou Ndiaye nga ca. sa maam moo jàngal Seydi Mouhamadou Moustapha. moo jàngal Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha. sa Maodo ma nga ca woon. ba waxtaan woo xóot. ba waxtaan woo ni Amad Mbaye. mu ne xaw ma luy xew ëllëg mu ne ko xaw ma luy xew ëllëg waaye su ma dëkkee waaye su ma dëkkee ci wetu Cheikh Seydil Hadji Malick dana ma jox loxo dana ma jox loxo ni ma jërëjëf ci mbokk gi ak ci tarixa bi waaw sëñ Moustapha sa baay ni mu fonke woon ñoom Ousmane Samb ak Koskas sa baay ni mu fonke woon ñoom Ousmane Samb ñi ak Koskas sa bàyyi ni mu taxee woon ci bokk bi. sa bàyyi ni mu taxewee woon ci bokk bi. sa bàyyi ni mu taxee woon ci diine. sa bàyyi ni mu taxewee woon ci diine ji. sa ni mu taxee woon ci kóllëre. sa bàyyi ni mu taxewee woon ci kóllëre. taxawaay booba. taxawaay booba. moom nga am ci njaboot yi. te sa bàyyi. am na lu mu fi bàyyi. am na lu mu fi dul deñ mukk. géew wasifa yi. géew wasifa yi. ak jàkka yi. ak jàkka yi. jumaa yi. ak jumaa yi. nga koy dégg. nga koy dégg. nu koy woote. koy woote. loolu nag. loolu nag. kenn du kenn ku dul sa baay. fonk nag. mbokk gi loolu. dana ma wax Mansour. ma ne ko si. Babacar Mansour. mu ne ma Serigne Babacar Sy Mansour. waxuma mbokk gi nu bokk. waxuma bokk gi nu bokk. ndax seen ñaari maam bokk nañ. ndax seen ñaari maam ñoo bokk ndey ak baay. ku ñuy wax Abdoulaye Cheikh. ku ñuy wax Abdoulaye Cheikh. moom meññ. moom meññ. alxaaji. alxaaji. amin amin kan kan. mu jur soxna Sukan. ak Serigne Ousmane Kan. mi jur. waaye juru Serigne Mouhamadou Moustapha. tabara Cheikh. tabara Cheikh.

danaa ca waxtaan ak moom. te lépp lu ma ko wax. te lépp lu ko loolu lay def. Serigne Moustapha. ku amul kilifa. sa maam moo ko wax. ne bàyyi ma nga. waaye yow de si am nga kilifa. foo foor ni Serigne Babacar sunu si sunu baay. sunu liggéey. foo waxe. ki xam ni. ki nga xam ni. noo koy dàkkantale ñenn ñi ci Baye Baye Aïda. noo ci ñenn ñi ci Baye Aïda. te mu tudd Sidi Boubacar. ak Cheikh Ahmed Tidiane si bu Serigne Mansour. ñoom ñëpp ñoom ñëpp. cër la jox. cër buñ la jox. nga summeeku nga leen ko jox leen ko. waaye si lu la wàññi. dara. dara la lu dul alxaaji Dudu Kenn maa ngi lay nuyu. bàyyi kii tegoon na la fu rëy. bàyyi ngir sa baay. ak nag sa taxawaay. ci tarixa bi. ak ci diine gi. Serigne Moustapha. maa ngi lay giiñal ni. nit nit ñu baax bari nañ ci àdduna. lool lool waaye maa gën Seydi Abdou Aziz Al Amin waaye maa gën Serigne Abdoul Aziz Al Amin kenn du ko ba kenn du ko ba ci mbokk yi ci mbokk ci diine ci diine ji ci tariixa bi ci tariixa bi ak ragal alal nag ak ragal alal nag alal moom alal moom xaalis xaalis daf ko ragal skey waaye wax nga léegi wax ju rëy. waaye nag wax nga léegi wax ju rëy. ci ku xam ne day wax dara ci tariixa bi. ci ku xam ne day wax dara ci tariixa bi. wala muy wax dara ci Cheikh Seydi El Hadji Malick. nee nga danga koy dóor. nee nga danga koy dóor. waaye kenn ñemewul wax dara. waaye kenn ñemewul wax dara. ci Cheikh Seydi El Hadji Malick. سيدي ابو بكر سيدي الحاج منصور سي الحاج عبد العزيز سي مام حبيب سي سكرم سي سكرم عبد الجامري صباي الشيخ سيد احمد التيجان سي المكتوب منصور مي مانيكو سي مونے ما مان كوما واخ لوما نخر يو يامتو مانيكو يو نيت دينا لا واخ لولا نخر يوم شيخ سيدنا محمد التيجانسي ابن سيدي ابو بكر ابن الشيخ سيد الحاج مالي يا شيخ تيجان مو سوخنا السكر الحاج حميد يو كان مو لاي واخ لولا نقري خو مو بري دوم خم خم لا نكوي فونكي ني ام خم خم تي ريو مي ييب كو تي واخال تيجان Maktoum c'est un grand intellectuel. lu la nit ci la waxee lu la naqari. ci góor gi mu ne mooy ku ma war a fajal daan. te fajul looloo ma ko. ñëw di ma nettali. ay la la Mansour wax ca dëkk ba. ay la la dund kenn du wax ca jàkka ja. ba naan mooma sama kafe. kooku rek moo ma toog. waaye na waaye nag. boo bëggee kër gi lool. jeex ci kër gi lool. dafa am nag looy tiitaroo. mooy koskas. seen taxawaay. seen ca sunu baay. ca sunu baay. sunu sunu sëriñ.

sëñ Moustapha fi laa yemale kàddu gi xale yi dañoo ñëwoon ca kër ga ni ma sëñ Moustapha day invité nañu ko dana ñëw bu doon sunu sago nag sëñ Moustapha bu ñëwee ba toog ay waay papa xam na ne mënoo ko sax waaye nga ñëw sagal waaye bu sëñ Moustapha. waaye bu sëñ Moustapha. koskaas koskaas. taxaw taxaw nii. nga jóge Tiwaawan. nga jóge Tiwaawan. ñëw di leen sagal. ñëw leen sagal. bokk ci soldaar yi. bokk ci yi. waaye ku ma ca wóolu di bon bon. ak li may nekk mag mag. ak li may nekk mag mag. ma fi yegsee. ndax su ma xam naa danaa am ngërëmal. danaa am ngërëmal. Seydi Abdoul Aziz Al Amin. ak i magam. ak i magam ak i baayam. di la gërëm nag si. Seydi Mouhamadou Moustapha maa ngi lay gërëm de. maa ngi lay sant de. sa baay bu ñuy wax Jibril Gueye Samba Ngoni. sa baay bu ñuy wax Jibril Gueye Samba Ngoni. dafa fekk saal ba fees lool. dafa fekk saal ba fees lool. mu fexe ba yegg si. mu fexe ba yegg si. nuyu sa maam Seydi Boubacar. nuyu sa maam Seydi Babacar si. ne ko sonn lool pour yegg si. ndax buux na ma ba tey. ndax buux ma ba tey. pour ma jox sa loxo. waaye. waaye. excellent. excellent. sa maam ne ko. sa maam Seydi Babacar li ma toog yëpp. ak ñi buuxante yëpp. كيف تخل بوخنت لمن شيخ سيد الحاج مالي وهي يتسي نيت ني تفل بنو ام تيو موي دا روي سا باي ام سنغرمال باي نيونا تتوليا نيونا تتوليا رومبو كاولا دم با تول رومبو كاولا دم با تول با يك يك togg keroog ay yu bari. togg keroog ay añ yu bari. sa ni ma. sa ni ma. bëggoon naa la. bëggoon naa la. sopp naa la. sopp naa la. ngir ñoo bokk ndey ak baay. ngir ñoo bokk ndey ak waaye xaw ma woon ni daan ma fekk si fii. sa baay. keroog ba sama baay génnee àdduna. keroog ba baay génnee àdduna. Amadou Mbaye dut kenn mii. Serigne Mansour jullee ko. Serigne ba nu yeggee ba ca armeel ya. ba nu àggee ba ya. moo sumi mbubbam. moo sumi mbubbam. ni kii kenn du ko nangu. ni kii kenn du ko diine ji. diine ji. mbokk bi. amul benn amul bu koy alxaaji dudu kenn alxaaji góor a sekk maa ngi leen di waxal sama doom ji na nga ko ñaanal yàlla may ko gudd fan yàlla may ko wér fa baayam taxawoon ay baayam taxaw fa taxaw na fa ci yooma ashura ku ñëw Tiwaawan. ku ñëw Tiwaawan. Ah, xam ni. xam ni. Seydi Abdoul Aziz Al Amin. am na ñu fa bay. mooy sa mag ya. ak sa baay ya. ak sa baay ya. waaye sa taxawaay. wàññeeku. kon si. yàlla na yàlla guddal sa fan.